bis la boo xam ne aussi <clears throat> yàlla dogal na mu am cër boo xam ne daf na ko cee jox moo tax ñu def déplacement bi jógee Tiwaawan ba fii pour ànd ko ak euh, waa Pastef Touba plus précisément ànd ko ak sëñ Cheikh Thioro ànd ko aussi ak honorable député euh, Fama Mbodj euh, donc ak délégation bi ñu àndal yépp <clears throat> di wax ni daal Euh, loolu moo nekkoon tànk yi donc di ñaan lépp loo xamante ni aussi wut si nañ ko fi yàlla jox ñu ci lu kawe suñu njort lépp lu ñu ragalit yàlla dàqal ñu ko euh, yàlla aaral ñu suñu président le président Ousmane Sonko euh, aaral ñu aussi <clears throat> parti bi ba yàlla jox ñu ndam li 2024 ba li nga xamante ni mooy attente yi nga xam ni moom la population yi xalaat lépp yàlla defal ñu taw féexi ñu redressé waat réew mi teg ko ci yoon te ñun ñëpp ñu fekke ko te ànd ko ak moom loolu daal moom lañu fi ñëwoon di fi euh, sàkku si ay ñaan ci loolu ci bis bi nga xamante ni mooy bisu sëñ bi waaw xanaa <clears throat> di wax ni rek euh, situation <clears throat> xëy na buñ demee ba mu àgg fenn fi ci la ko ñëpp di soga a commencé di ci xalaat wala di ko lu koy gis mais fa mu da dafa da ndax fa mu tàmbalee ya ko seetee ba seet ko da ngay gis ni ah lip éliminer ab adversaire politique dong moo koy indi waaw ndax manam tey jii <clears throat> bu fekkee dañoo nekk ci am réew moo xam ni dañ ne démocratie da moo lañ tanma, war a doxal dañu ni bu ñuy kenn ku ne sañ nga ni man damaa bëgg ñu tànn ma bu fekkee say kayit mate na ko sa âge mate na ko euh, léegi ñu gis ni picc mi nga xamante ni liñ naan euh, ku ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw <coughs> ndax situation bi nga xamante ni moom la président Sonko di dund am na ñu ko jiitu woon ñoo xam dundoon nañ ko te ñooñu dund gin ko dund aussi dafa am lu bari lu mu jàngal askan wi xam le ni Macky Sall du koo xamante nii daa bëgg bëreek moroomam day bëgg toujours di bëre ak ay euh, ay liir yu ndaw maanaam ñoo xamante ni leer na ko nit ñi bu songoo ak ñoom ak li muy sàccaale ci ay élection da leen di mën a daaneel loolu moo indi jafe-jafe yi nga xam ni moo am nit ñi nag comme président Ousmane Sonko yenn leen ba ñu ni jar ba ñoom xam nañu bu baax ni lii ay caaxaan rek la du dara lu dul Euh, complot ngir bëgg ko éliminer en tant que adversaire boo xam ni bi ñu defee seen sondage yi def nañ ko ñett yoon gis nañ ni président Sonko moo leen di gagné léegi nag loolu ci leen sukkandiku ni kii kon nañ ko éliminer loolu moo indi woon dossier Adji Sarr ba bañ demee ba xam ni dossier bi kenn gëmatu ko liir bi gën a tuuti boo ko laajoon tey mun la li complot la ci la ñu daw indi dossier bi nga xamante ni mooy Mame Mbaye Niang bi ndax Mame Mbaye bi média bi wax na ci Amadou Ba wax na ci moom mi nga xam mooy premier ministre actuellement ndax dafa wax ni dossier bi am na rapport bi am na mais dafa fuité waaw <clears throat> donc mu ni mu ni sax euh, Mame Mbaye Niang mere woon na ko ci ndax jàppoon na ni moom moo fuité loo dossier boobu waaw léegi nag bu ñu demee ba Ibra ba Birahim Seck bind ci téere bu ñu demee ba journaliste yi foo mën a dem ñu ni Mame Mbaye moom moo luubal alalu réew mi lu toll ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent kon suñu demee ba loolu lépp nit ñi xam ko xam ne lii moo am mais il suffit président Sonko tudd ko rek mu daal di ne damaa sosal loolu la koy toppee. waaw xam nga dafa am loo xam dafa am solo <clears throat> ci àddina xam nga koo xamante ni daa sàcc ba ñëpp xam ne daa sàcc ñëpp yuuxoo ko ñëpp jàpp ko maanaam gendarmerie ku mel na ci misaal koo xam ne daa sàcc ba gendarmerie jàpp ko yow nga tollu fële nii kii daa sàcc. waaw loolu lan moo la ci war a mën a fekk yow kenn warul laa jéem a laaj loolu sax mais li ñu waroon def mooy jéema fexe ba xaalis boobu mu sàcc mu génne ko loolu moo nekkoon problème bi ndax loola mën nañ cee liggéey ay hôpital mën nañ cee liggéey ay poste de mën nañ cee liggéey école mën nañ cee defar ay tëli mën nañ cee defar leneen ak leneen kon loolu euh, dafa dem ba situation bi waratul posé wu ci côté boobu mooy ndax am na lii wala am na lii mais dañoo xam ni 17 million habitants yu Sénégal yëpp. boo laajoon dix millions yi wala quinze millions yi ñoom xam nañ ne Mame Mbaye Niang dafa sàcc alalu réew mi voilà loolu kon kenn nattableetu ko l'essentiel mooy nan war a def ba mu goqi alal jooju loolu la ñu war a toppatoo. mais xam nga tey jii dafa am loo xamante ni procès la procès la boo xamante ni président Sonko lam ci wax ñun gëm nañ ko mooy moom yor na preuve yëpp yoo xamante ni nañ ko ko dinañ ko ko dinañ ko ko demander mais nag xam nga booy xeex ak état dafa yombul te dafa metti ndax état boo xamante ni moom mooy contrôler justice bi séparation des pouvoirs boobu ñuy wax amul parce que bari na fi ay plainte yoo xam ne def na ko sans suite amul benn suite bon mën nañoo wax ne ñu ngi koy agressé guddeeg bëccëg di agressé famille am di agressé ay militant di toj siège di def lépp waaye tey jii amul benn benn baaraam boo xam ne justice yëkkati na ko sax pour wax ni arrête wala pour ubbi ab dossier ci ñoom kon loolu boo demee ba nga àgg foofu ci am réew kon jappal ni liing nga xam ñom mom lañ lay fexeele tamit lepp lu nu man dinañ ko def pour yow jëm la éliminer ndax lu yow arranger wu len ndax gëndo ak ñom bëre di nga len daanel motax ñuy jëm tout pour jëm la éliminer lool rek la. mon lay indi ben jeexital ci mom ndax tay ji xam nga bu ne rapport bi amna ba wax ne rapport bi fuité na ba wax ne rapport mi ngi ci internet ba. président Sonko ni ci la ko liiree ay quelques lignes la ci liir que ni rapport bi am na boo demoon tey fi nga xam ne dagg dagg yi ah domaine agricole communautaire yi nga xamante ni moom la ñu waxoon ni moom la ñuy def ci ñaar fukki milliards yeeg juróom-ñeent boo wëroon Sénégal ba mu jeex amul benn dagg boo xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy jariñoo boo xam ni pare na boo xamante ni def nañ fa dara amul. waaw mais xam nga rapport moom kenn mënu koo dugal nii ci internet ndax rapport boo xooloon tey. ñun ñu nekk assemblée nationale xam nañu ko maanaam am na yoo xamante nii dina doon jalu jal boo xamante nii pour nit toog donc di ko inventé di ko créer loolu yombul loolu eh, IGF moo ko def maanaam corps de contrôle la boo xamante ni moo ci liggéey te fi mu toll nii Samba Laobé Dieng bi nga xam moo ko jiite woon mais condition yamu mu dee sax ñun xamuñu ko ndax moom moo jiite woon affaire bi te affaire bi bi mu génnee Amadou Ba ci boppam premier moo wax ni rapport bi am na mais rapport dafa fuité maanaam rapport bi dafa fuité maanaam dafa jekk ba yàgg ñu dugal ko ci internet bi kon kon dafa fuité mais rapport kenn mënu ko inventé kenn mënu ko parce que ñii nga xamante ni IGF ñi nga xamante ni ñoom ñooy créer rapport ñoom ñooy dem yor ay moyens di saytu fu ne ñu dugg fa ba génne rapport enquête bu ne ñu def ko foo xamante dañ faa war a taxaw xool ba xam li ñu wax méngoo na ak li na ci terrain bi dañ koy def kon loolu yombul waaw suñu demee nag ba loolu lépp am Amadou Ba ne rapport bi existé na rapport bi dafa fuité nee na dem na ba mambay ñaa mere ko ci jàpp moom moo fuité loo rapport bi kon loolu lu leer naa ñi la amatul ay laam-laam rafetlu taxawaay bi ak liggéey bi xam ni daal sëñ bi dañ koy ñaanal rek yàlla yàggal ko suñu kanam wéral ay cëram ba lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal waajuram ak Serigne Touba radiyallahu taala anhu yàlla may ko man-man bi ak pexe yi ba mu mën ko àggale ci jàmm